La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de Nyari mandat ou juróomi mhm. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de durom Donc le mandat de Macky Sall 2012 2019 constitution du Sénégal du quoi considérer non non non non non du quoi considérer. لا إله إلا الله rañ si xoolal rañ si bi xoolal Toyota bi laa ilaha illallah خال xaaral Abbas laay bañ mu raw ma arrivé de Abbas Diardiou Seri Aïda Sambou, wa Gambie délégation wa Gambie jëkkër daal na la nopp ma ne jëkkër na la nopp jëkkër daal na la nopp wàccal ma ah, jaaju lii day bu ko sénégalais yi ku ne war naa roy ci yow de. adduna de ku ne war naa roy ci yow. ah lii nga defal sa soxna si. waay ko doole. yokk ko kattan ñëw taxawu ko laqatuwoo dawoo barke Serigne Bamba lii doy na waar. laa ilaha illallah jaaju Mame Bouré waaw wuy lii yow lii gisuma leen maa ngi ci jàmm bu baax sama xol iya, sedd kenn yow ragaloon dara ah. ragal de barke Serigne Ba soutenir nga sa lii lañu ah, jigéen moom nii bu ko defee ñëpp naw la. moo man jigéen de. barki borom Touba. dëgg yàlla. cofoo ko de. bu la neexoon jot ngeen ne sama jabar la sama yoon ñëw ci musique dëgg la. yaay ménage yaay lépp. mais faatoo ngi nii. Eh. laa ilaha illallah. faatu international. faatu mu Abbas jaaju faatu mu réew mi. faatu mu Aïda Samb. ay waay sama jigéen baa ngi La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de Nyari mandat ou mhm. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom Donc le mandat de Macky Sall 2012 2019 constitution du Sénégal de quoi considérer non non non non non De quoi considérer